so bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. magum dëkk tund wi sox yi fi tàkk yépp maa ko sox loolu dëgg la waaye nag li mbir mi lépp daanaka xam naa ko ndax umpalewuma sëg dëgër bopp ci waa ji di lat yi nekk ca biir xadra ba ma sàkkoo ci yow nga delloo ko ci ay mbokkam yàgg na lool moo ne boobu ba léegi de dangaa sëndëmlu samay kàddu daanaka rek ci wewu béy magum dëkk am yaakaar duma deñ di la ko wax ngir li dox sama diggante digganteeg yow ba jotatoo ci man benn xew-xew mooy Latir mi nekk ci biir kër gi loolu indiwuma fi xam nga tey ji lu ma la bëggoon a laaj baay fekk ba ngeen ko génnee ba léegi yaramam neexut te dëgg jóg rek lay nekk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuma la koo wax ma doon laaj lan ngeen ko def fii ci biir. yow buy yow daa dégg ñu ne la dañuy def daanga am yow da ñoo bëgg a tam dëmm. eh jógal nga génn kër gi jógal jógal nag bala maa meeg jógal. waa jamonoy léegi jii képp ku ci ne booy def ku la ne dama ne rek nga déglu ko. léeg-léeg ñu tabbal la ci foo xamee ne bëggoo fa woon a tabbi waaye lépp àndandoo ju bon a koy waral kon àndandoo lu mat a seet la lu mat a bàyyi xel la te genn wàllu doomu aadama léegi ci sunu jamono jii bari na ku naan la jàppal mayan la yan bam la yan dara ñoru ko daa bëgg ne xam la ne ca sa ndab rek te nit ñi buñ la né jappal mayan yan la nga japp rek yan da nga dem ba duutoo yenn ko mhm. ndax sa bo bëggee yenn ko gis ko la jappal mayan la deug la bop bi barké di wacc nak nopp bu deug ndigal ci sax kenn waru ma yàq ci bëgg ndax deug nga ma wax ji su bare dafa ma yàq rek jamono ji kenn waru ma yàq ci bëgg ndax deug nga ma gis gi gënalu ma benn yoon baax na deug la walu yow mom da ngay sama xarit do ñaan luma ma lay gàntal donte sax soriwuma ko won way dina ko gëna jégé jege ngir dabu bànneexam way yow it ma dabu sa bànneex ndax gor deug nga. ah de bokk defé dina ma neex lool ndax man da jàmm rek la la bëggal ak lu baax ak ko bëggale sama bop kon dal bokk defé dina ma neex lool. yow da ngay garmi te waxantu walu Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.